The Minister of Transport, Works and Infrastructure has reminded drivers and the general public that transport fares still remain unchanged across the country. In a media dispatch on Friday, in response to a tip-off, uh, some drivers are utilizing increasing transport fares for various destinations across the country. The minister the drivers to desist from such acts. He has more details of that in this report by Moses Imende. It is widely expected mm. that mm, transport fares increment will sweep through the country following the expiration of a government subsidy that underpinned the preceding price on July 1, 2022. However, the government has called on drivers who have increased transport fares for various destinations across the country to desist from the practice, furthering that it is unacceptable. Fuel prices have increased effectively at the pump since 1st July, with the price of petrol per litre jumping to $78, while diesel stood at 73 and kerosene at $89 respectively. The ministry also confirmed that negotiation with relevant transport union officials for an amicable solution has begun. In one of the previous releases, the government said it has forfeited its revenue from petroleum products and even agreed with oil marketing companies to also reduce their margins to reduce the overall fuel price increment in the country. But drivers said the move has failed to quell the price surge and continue to decry profit loss although passengers are paying higher fares than they used to demand for petroleum products increased when global oil price skyrocketed last year following the recovery of the global economy from the COVID-19 pandemic. But the Russian invasion on Ukraine has already steeped energy costs with some countries in sub-Saharan Africa having seen a record surge in fuel prices. Russia is one of the major crude oil exporters in the world. Moses Mendy, iAfrica News. Uh, of course, Moses, for a report on the transport uh, issues in the country. Of course, there has been some uh, unconfirmed reports or news that uh, some drivers were unilaterally uh, taking advantage of the situation and uh, used the uh, transport fares. But then the Minister of Transport have issued a statement in the, informing the drivers and the public that the I mean, transport fares in the country remain unchanged. So uh, drivers that are taking the opportunity to uh, increase the fares are urged to desist from such act, all right? So they are warned. ok munginono, ngi noonu li minister rek of transport again génnee bataaxal si Ajumaji di Euh, euh, drive yi nañ fexe euh, bàyyi li nga xamante ne mooy wala sax yëgal nit ñi ak drive yi ne paas bi ci réew mi yokkuñ ko ah soog because lii nag li tax ñu wax ko mooy ñu ngi dégg ne am na yenn drive yi ñu ngi profité ci yenn destination yi diggante yenn brep yi ñu ci yokk kal bi seen bopp te ñu jàpp ne loolu warul nañ ci bëgg taxaw tuuti rek pour lifin loolu dañ su ko defee ñu ñu ñëw maam just quickly ci réaction boobu noonu affaire paas bi cool yi bari na de waaw because xam nga coow li bëri na ci ndax. dara fay bu gën a yooyu ñu yi nag. increasement of fuel bi. tax na drivers yi ñu ngi doon wane ne. Mhm. ñoom bu fekkee coppiti amul ñoom tamit dinañ yokk li nga xam ne moom moo nekk paas yi. Mhm. gaa gis nañ ne loolu nekkagul jéego bu taxaw ndax li ko waral mooy ñoom fësal nañ seen kàddu rek ne bëgg nañ coppiteef mu am ci wàllu transport bi ndax la ko waral mooy dañ waxtaanoon ci ne. Mhm. saa yu increasement amee ci wàllu fuel bi ci eh, percentage. loolu war naa tax mu di reflect ci li nga xam ne mooy paas yi currently nag gis nañ ne essence bi yokk na ci diir bu yaatu ñu gis ci loola ba mu amee ku mel ni président bi wax na ko ne bu fekkee coppitef amul pour ñu yokk paas yi njabootam dinañ def li nga xam ne moom moo nekk banque seen loxo ah. léegi nag ndax ay la yéwén loolu moo tax ministre bi mu araftu leen. non waaye xam mbir mi du loolu dañ ñu ne dañ dégg na yenn si driver yi ñu ngi profité. non non loolu yokkal paas bi seen bopp loolu la jàpp ne warut a am loolu moom is an open secret ne. drivers yi right now nii am na ñu nga xam ne diggante Buuba zone ak Westfield dañ koy caaj 20 dollars yi. te xam nga loolu moom te loolu nekkul yoon. xëtt sarta la loolu xëtt sarta la. bi. ñu ngi ñu ngi def lu right now nii loolu mu ngi am. Mm-hmm. even président bi si waxam sax li mu lay wax ne. am na ci ñenn ñu nga xam ñu ngi ci biir njaboot gi nit mënul lena control contrôle understand nga because liñ gëm rek mooy ne ñoom commercial drivers lañ commercial drivers lañ waaye comme ministre bi wax na li nañ jël nañ jël nañ jël matuwaay yuy tax mhm. ñu gis ne drivers yi ginañ ci gis seen boppa askan wi tam buñ loru ci li nga xam ne mooy bi ndax fu muy munte mujjee ci askan wi rek lay jëm all right quickly mon ñang ban jàngat nga am ci ci loolu um, jangat bu ma si am rek mooy ne rek nit nag waruloo defal sa bopp lu la neex. exact fii si fekkee dañ war a yokk ñoom dañu am ay kilifa ne kilifa yu waxtaan ak kilifa yi su ko defee. Mm-hmm. bu ñu waree yokk ñu yokk according to the law nag comme ni ko président waaye la président bi wax soo yokkee foyel su yokkee da nga war a yokk paas waaye yow warloo jëlal sa bopp yokk waaye loolu du fi loolu du fi lu bees du nekku fi lu lu ees. Mm-hmm. bu ko soo bàyyee xel fii dog-dog yii nii du yoon te. loolu leen loolu leen dëkkee ak Dreyfus sa ko li mooy ne yokkute bi loolu mu ngi fi fees del waaye yan matuwaay ak la ministre bi jël pour teg wax rek génne préliminaire waru leen yokk waaye amul benn taxawaay bu si am mm. te doxuloo si yoon ba ñu gis vanne bu ñu wàccee lan mooy problème bi. ñu bari tamit jàpp ne sax système bi moom moo tax. waaw ba pare euh, driver yi ñu jot mooy ay garage amul bu régler situation bi lu ko mën a. régler mooy garage bokk na si te ñoom ñu ngi jooytu loolu waaye loolu ba léegi mu gars yi mënuñu ko. proprement lu ma gis daanaka bi lay rek la ñoo def si seen statement yooyu bind ko rek presse release yoo génnee ko pour lay waaye amuñ benn taxawaay bu ñu def pour gis ne loolu mu stop amut. Hmm. gis gisoo ko si yoon bi dog dog page yi ngay wax noonu proposal bi moo nekkoon ah. yëfi sticker yooyu ñuy wax ah. waaye ñu ngi laa woon ne try nañ ko waaye nga xam nga loolu moom depuis day woon wax hmm. ah. système bi dafa am dafa am lu nga xam ne nii dafa am lu war a tax mu am te loolu amul si réew mi ay garage lu koy gunge te loolu amul fi lu si des mooy ne ni ngee sonn loolu foog mu am page yi moom gars ñu ngi koy yokkee ni leen neexee te gisuñ ku leen ne bul ko def gisuñ ku leen a bàyyil ok jërëjëf jërëjëf Modou Niang eh, su ko defee ñu suñ gi ñu ko mu eh, MC Thiam Junior am ngeen ne moom moo jiite ndaw yi ci parti GDC quickly rek eh, li tax mu ñëw nag bari na xam naa du mu comment ci ci yi MC ñu bàyyi la nga nuyoo ak gars du maa ngi laa di la gërëm bu baax jërëjëf maam ak Modou Niang di nuyu ñu si daan programme bi ñu nekk réew mi ak diaspora bi na la innama waaye comme ni ko Mour Niang waxee euh, where the government joxe press release whatever pass moom yokku na already because dog-dog yi mu ngi la koo woon fii laa em nga em foo mu ne maa ngi continuer so foog naa ne lu ko waral mooy euh, diisoo dafa war a am si diggante transport yi ñu doon ak nguur bi soo war a yokka essence wala gasoil war ngaa mën a oo euh, kilifa yoo xam ne ñoo amee wàllu transport bi ngeen toog ne de bëgg a yokkal lii ak lii ñoom tam ñu waxee seen proposal ne soo ko yokkee itam pass bi war nañ ko mën a yokkal li soo yaa gis ne pour du am balaa ngaa yokk essence war nañu fekk waxtaanee seen biir ma d'accord def sooy génnee press release ne yaa ngi yokk essence yaa ngi génn tam ni ngay yokk tam ni ni ngay wane ni ngay yokk tam paas bi tam. so from there am contrôle boo tey soo génnee press release rek fu la am léegi comme ñoo ñu ko war a implement. loolu mooy projet Gambia mun ngaa bind statement wax ne waaw lii du ko nangu. wala fan la em si rajo yi la em ak si ak si télé yi la em wala from dèjà jeex na lu waaye neex mun na koo def so Gambie problème boobu la nekkan yi wala foog naa ne communications mhm. ak dialogue toog diggante di transport union ak ministre of naka transport énergie ñu toog ñoom ñëpp discours ne waa lii dañ ko bëgg a yokk waaye suñ ko yokkee itam paas bi tam nañ ko yokkee nii da ngaa join comme press release mu nekk benn yokka neen essence yokka neen paas bi lii mooy paas bi from there ñu close ku nekk xam yow la mooy sa liggéey mu <clears throat> jërëjëf MC euh, boobu moom xam naa ne euh, duñ ci sori bu baax waaye xam naa du ñàkk beneen euh, développement bu ci amee nañ ci